réew yu bari la ci àdduna dañuy am nag ay at yu yàgg yàgg na lañ tàmbali woon di dajee euh, ay ndaje yu mag a mag ci àdduna bi tànn benn réew dafa def ay jogante ci wàllu cosaan ak aada ci wàllu jogante mënnu yaram ñu koy wax sport euh, réew yu yëpp ku ci nekk tànn say ndaw yu fay dem loolu nag bi mu amee ba ñu bind Sénégal dafa am ñaari kuréel kuréel goo xam ne ci biir réew mi dañoo dañoo tànn boroomi xam-xam yoo xam ne ñëpp nanguñ leen leen ci wàllu cosaan aada ci wàllu tarix ñu ne bépp nit boo xam ne yaa ngi yoo yëngatu ci artiste nga te yitteel la ci wàllu ñeenti ponc yi xam ne lañ bokk boo lañ ko ci li ko dalee ci am peccam am mbuy wala loolu ñuy wax xale yi di wooy ay ay rab wala ay lépp lépp kat yu mel noonu yëpp daal bànqaas jël nañ ci juróom-ñeent yoo ñun moo ñu soxal ni képp koo xam ne am nga ci xam-xam wala xereñ ci óolu ci sa mën-mën mën ngaa bindu bokk jogante bi ñuy tànnee ndawu Sénégal yi fay dem boobu kuréel nag jox leen seen moomeelu bopp ñu tànn ci sukkandiku ci xam-xam ak jub ak bañ a jeng bu ñu tànnee loolu amee amoon nañ lu tolloog ñaar téeméeri nit ak ñeent fukk ñaar yoo xam ne ni ñoom dañoo wane woon seen euh, seen yéene bokk ci loolu ci jogante boobu ba nu ko defee pare nag ñu tànn ñi jàpp ne ñoo ci war a gën a yeeyoo dem taxawal suñu réew foofu mais loolu comme que ñu ñun ñu ne noonu la dañ ko seqal duñu ko bàyyee noonu ñu aussi dañu amee beneen kuréel buy saytu li ñu saytu nga xam ne leen lu ci lëndëm du ci am bu ñuy saytoo pare nag tànn ñi nga xam ne lañ jàpp ne ñoom ñoo gën a méngoo ak li ñuy xaar ci jongante googa ci lañ ñu jox ab këyit bu tolloog ñaar fukki artiste boo xam ne ak benn yoo xam ne Sénégal la ñu jógee toogal ñu ci mooma ndaje kon yéen ñu fi toog tey yi kenn lañ ci tànnul ci yaa yaay xarit yaay dëkkandoo yaay soppe yaay militant waaye sa xam-xam sa mën-mën sa xereñ ak fësal sa jikko bu taaru moo la tànn ku nekk sa mën-mën moo la tànn bi leen tànn nag moo ti leen dajale président public sasoon yu de nañ jël jumtuwaay yu war yëpp ci li nga xam ni mooy seen demin seen nekkin foofa ñuy xaar ci yéen aussi ngeen nekk ndawu Sénégal wane fa liy teraanga Sénégal mën-mënu Sénégal jikkooy Sénégal ku nekk jàpp boo fa demee sa jikkook sa jëfin la ñuy nattee wuyu Sénégal wala noonu lañ koy nasaxalee te xam ne nasaxal du ci am ñaari bànqaas nag wàllu sport ak wàllu culture premier ministre bi ñu dénk wàllu sport démb daa dina joxe raaya yi ci ñiy dem ci wàllu sport bi mu desoon léegi nag tey taarix bi ak cosaan ak aada ñu dajee ak yéen fii nii. ñu tegaat ci wet gi nag fukk ak ñaar yoo xam ne ni ñooñu mooy ñi teewal foofu nguur gi ak taskatu xibaar yi ñëw ak ñu boole ci nag lu bees mooy Miss Sénégal ak ñu ëmb kuréel ga di cee boole parce que ministère bi dañu fas dañ jël ndogal léegi ne wàllu Miss Sénégal dañ ci euh, xar suñu tànk tubay def suñu kéem kàttan ba na mu yànje woon mu gën a yokkooti na mu yaatoo mu gën a yokkooti la nga xam ne nii teraanga ju ci nekk la gën a yokk mais loolu bokk na ci fësal ko ci biir réew mi ak ci bitim réew ci leen invité pour ñu bokk aussi ci parce que bu ñu naan nag ndawal Sénégal bitim réew ci wàllu tarix ak wàllu cosaan ak aada munoo cee seppi sunu jigéen yu ñu tànn ci ni leen tànn tànnee seen bopp loolu aussi di leen cee boole ñu nag mooy nekk fanweeri ak ñett yu mottali ñu nekk ci wàllu sport bi demandoo fa ci li ko dalee ci weer yu nekk boo amee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba weer wàcc tegee boo amee juróom-benni fan. liñ koy defee ca réewum euh, république démocratique bu kongo ca capitale ba ñu koy wooyee Kinshasa. Euh, jël nañ matuwaay yi ci war yëpp la nga xam ne lañ war a fayal ku ne ci sa dëkkuwaay foofa ak sa dundin président jëloon ay matukaay ca njëlbeen danañ ko jox ministère bi def nañ ko ba pare. Euh, ku ci dem aussi dañ la jox ab sërite boo yóbbaale ndaxte nag booy dem fooy gane tuboodaanke daa gaaw ci gane. ak lu teraanga bari bari lool na jox loo xam ne boo demee ñi sant ji ak bari ak ñooñu ak ñooñu bëgg a génn eh, jéem a mos toggin ya fa nekk ak colin ya fa nekk ak eh, mun a am lu nu lu nu ngànnaayoo ko aussi président jël na ko jox ku ci nekk la ci war jàppale la ko eh, jox leen ko di xaar si yéen nag xereñ bi ñu gis si yéen te njiiñ leen ko ngeen firndeel ko ci seen nekkin ak seen Eh, jongante ya fa nekk ba pare boole kook nag eh, jàmmoo ak salaam ak lépp luy wone teraanga Sénégal konte nag loolu lañu bëggoon eh, tey daje fi jox leen boobu yet ak boobu tegtal ci turu président de la République ak turu premier ministre ak aussi jox leen li nga xam ne ni mooy yóbbal yeneen président jox ngir seen nekkin foofa gën a mucc ayib ci demin ga ñu ngi ci lënkaloo ak ministère des sports ci qualité au premier ministre xool na mu gën a yànje ak na mu gën a euh, euh, ñoŋee pour ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm nekkee fa jàmm ba xam ne daal ku ci ne nattukaayu wuyu Sénégal nga nattukaayu taaru Sénégal nga nattukaayu teraanga Sénégal bu ñu paree comme que nag bu ñu paree lii euh, ki ñu dénk wàllu koppar yooyu dinañ leen won yoon woo jëm foofa ku nekk daal di fajaar jaar euh, jëflante moom li war a jëflante moom kon maa ngi ñu gërëm ñëpp di leen sant di di leen yebaat